aja salaamaaleykum tas nuyu naa la. waaw fay naa leen eh? waaw wasaare waaw wasaare TV. Mhm. si jam. waaw maa ngi sant alhamdulilah. fekk naa la nga toog sa table de mel ku woote leer na ma ne non man moom weeru koor mom du sama problème koor gi mom dañ koy jëmal bu baax a baax parce que bu dul daal dama weeru weeru profité la dañ ciy profité jaamu ci yàlla bu baax faxas suñuy bàkkaar sama genre gi dañoo mën a tooñ profité jéggalu borom bi bu baax a baax a dañuy woor bu baax baax. ñun lu dul weeru koor sax dañuy wóor man damay wóor 6 mois non pas wàññi man damay wóor 6 loolu ñi ma xam dëgg xam nañ ko ci man atu euh, xaaju xaaju at yëpp dama koy woor man moom waaw lii taxul ma koy wax sax mais dama lay wax rek li nekk ci man. tey ñu fekk sa la fi rompoyé Canada lan moo fi waral sa teewaay. non suñu teewaay moom li ko waral fii lu bari la parce que ki xewle tey da di suñu waay di suñu xarit di Baye Fall aussi. di kenn si ñun di koo xamante ni mu ngi liggéey liggéey bu am solo ci réew mi waa réew mi yëpp bëgg ko kon kooku bu ñu invité ci bésam duñ def lu dul ñëw jëmal bés bi bu ñu keneen invité woon sax dañuy ñëw rien ko pour geste bi ndax geste bi geste bu ñu war a pousser la ci kanam muy social. waaw loolu moo ñu gën a sawarloo ñëw ñëw jëmal bés bi teewal teewal teewal banlieue bu baax a baax. sa diggante ak Ngaaka Blindé noo Ngaaka Ngaaka Ngaaka sama waay la sama waay la Baye Fall la nit ku baax la nit ku oyof parce que man dama ko doon déggee depuis xale. parce que man melomaanu rab laa dama koy bëggee bu baax li muy def dafa am solo bi ñu yàlla dugalee ci lii tamit ñun ñuy yëngu ci suñu côté muy comédie bi ndeke ndekete moom tamit dafa may bëggee après ci la woo pot wax ko affaire yooyu noonu man moom link bi daaw ñu toog waxtaan mu nekk nitu café mu nekk nit ku oyof boobaak léegi lépp lu mu xewle dafa ma ci woo man tamit lépp lu ma xew xewle dama ko ciy woo ñu ciy waxtaan bu baax a baax nit ku baax la daal waaw jaam njaaxa moom jaambaar la waaw nitu nit ñi la njaax Sénégal la mu ngi noonu. nga gisee initiative bi. waaw initiative bi c'est à c'est à c'est à féliciter c'est à féliciter parce que lii day wane ni kii fàttewul démbam fàttewul waa koñam. waaw fàttewul waa koñam parce que lii muy def nii ñun ñëpp dañ ko war a def man démb rek récemment maa ngi doon def sama koñ. kon moom bu ñu woowee tey tam da ciy sawar suba tamit kenen, ginnaaw suba keneen ak keneen initiative bi lii lu ñu war a pousser la parce que sénégalais dafa mën a toppandoo mais ren heureusement ñu ngi toppandoo ci lu baax. parce que boo xoolee presque artistes yëpp def nañ ko seen koñ loolu lu ñu war a jëmmal la di profité di lancer occasion peut-être ñi nga xamante seen loxo jot na seen ginnaaw borom doole ci réew mi ñoom war nañ di ko mën a def chaque jour war nañ ko di ko mën a def loo xamante ne la waru xaal ba weeru koor lu dul weeru koor askan wi dañuy soxla social parce que dëkk bi dafa dëgër corona bi jaar na fi def na fi lu ne lu mel nii ñëpp dañ ko war a def ngir néew gi doole yi mën a gis seen bopp ci société bi lu ñu a la. waaw projet yi moom yaakaar naa ñëpp dégg nañ ko incha allah rabi instant bi li ñu gën a fës mooy événement bi ñuy songu le 5 juin incha allah LG Mbao rond-point Sicap Mbao muy suñu show annuel bu ñuy def foofu noonu nga xamante ne artistes yëpp dinañ teew ba ci ngaaka miyoog ñoom One Lyrical Samba Peuzzi ñëpp dañuy teew waaw en dehors de yi ñëpp dañuy yi moom comédiens Sénégal yëpp samay xarit la ñëpp dañuy teew ci bés déjà waaw te dina amaale beneen show tamit parce que man. waaw man ma di meloon man man daanaka mooy fekk ma nekk rapport waaw passe partout la waaw daanaka ñëpp dañuy teew incha allah muy le 5 juin incha allah ci loolu la ñuy jub loolu la ñu gën a jublu comme Toch yow da nga xam dañ la xam si bëggal nit ñi léegi dama bëgg rek nga léebal ñu wala nga mayal ñu benn bu neex rek. non lépp noonu bàyyil noonu bàyyil noonu. non non xoolal pré préparé wu ko. xoolal xoolal benn benn benn benn femme la woon. muy liggéey wasaare TV. mu may woo di ma jot muy mer. muy yow. <laughs> gaaruwaale non damaa dégg ngay wër ci dëkk bi naan ay dama jafeeg nangam nangam nag ma. ma sérieusement li may wax ni dëgg la dama lay woo ba sonn mais pour nga kale ak tos émission sax kale ak Macky Sall émission moo gën a yomb demee. bul wax loolu man man man man man aw ma problème boobu am problème c'est que juste parfois rek may woo rek mu am non non damay nekk tournage yi damay nekk ci tournage <laughs> la demee man ay xale yu ndaw ay boy am 4 ans ñoo yor sama numéro a tey eh, mais waa allo ay booy yu ndaw di ma kokkali paas ma waa gi yëpp ma problème boobu noonu bàyyi li nga wax bul yàq sama der bul yàq sama der xatu ma. baax na merci beaucoup. jaajëf merci.